diine ji mais gis nañu ay xale dem fële ca Saly maanaam def fa lu doy waar loo xamante ni am nañu ko tuddee mbott bi ñu baal ma nag ci li nga xamante ni moom mooy kàddu yi mooy maanaam dañ doon séyanti seen biir ñiy jël ay paaka ñiy jël loo xam mbott mii di dund lañ jël ko dugal seen i awra ay jigéen mu nekk ay image yu ñaaw yoo xamante ni kenn kenn kenn kenn mënul xam lu lu demee noonu waaw ah, mais seeni wuy jur ca la ñuy déparé parce que ku jur sa doom yaa ko war a sàmm soo ko sàmmul bu génnee ci biti lu xelam daj mu def ko ndax bul fàtte ni kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku nekk sàmm nga dañ na laaj la nga sàmm fu mujj tey boo ma jëloon ma lay sàmmal nga jox ma ay gàtt ma dem ba ngoon mu indi gàtt yi am bu man koo koy laaj da nga ko laaj gàtt yi ndax gàtt yi nga koy laaj koo koy laaj voilà man nga naan ma ana ana xar sàngam mm-hmm. wala ana bëy sàngam wala ana nag sàngam ana gëléem sàngam loolu man nga koy laaj ndax maa sàmmi woon kon képp ku am doom mm-hmm. loola sa doom def ah am nga ca wàll mm-hmm. parce que xale yi buñ leen yaroon ni leen war a yare sàmm leen ni leen war a sàmmee loolu luñ ko def waaw ndax yu zakkihim o wa yuallimumul kitaab wal xikma yàlla neen na ngeen yar xale yi na ngeen leen jàngal alquran na ngeen leen jàngal niti waaw lii la yàlla bu fekkee ni niti nañ duñ def lool waaye mbot ak yu kenn xamul yooyu yooyu loolu pour lan la amul njëriñ yàqute sa yàqute rek ngay wane waaw amul benn njëriñ sa yàqute ngay wane te ñi ko def ñëpp waxuma dañ ko réccu de waaye dañ ko réccu ji de waaw parce que kaay moox jamono ji ngay toll di def li ngay def da nga ko weesu bu dee lu baax da nga ko da sant yàlla bu dee lu bon da nga ko réccu jamono ji danga ko weesu amul kuy nekk jamono ñun ñi ñëpp danañu weesu bi lépp danañ ko weesu nekk ay maam baa ñu dee suñu doom ne fi lu ci rafetoon danañ ko fàttali ko lu ci ñaawoon lépp nag lu mën a doon da nga koy weesu dana boo ko xalaatee noonu da rafet ngay def mais doo def lu ñaaw waaw ay ay ay sindax ay janax ak ay kañaak yooyu yëpp yooyu yooyu ko jaru ko jaru dëgg la de kon ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw yi incha allah ñu bàyyi waat xel ci li nga xamante ne wax na ko ndax daan dégg sama papa daan ma wax benn moo ne ma mbaa xam nga ni fépp foo dem rek yow yaa fay sama yow yaa fay yow yaa ma fa jëmmal te dëgg la ndax ku jur doom dañ naan moom mooy sa ambassadeur ci bu fekkee foo mënti nekk rek noo fu mën a comporté woo bu ñu laajtee kii doomu kan la buñ ne doomu diw la ak diw rek ñu mën a xam ne ah kon yoon la wala bokk nii mu mel wàllam la ci mu mel mel nii kon ñi ñi nga xamante ni moom mooy ndaw yi mais tamit oustaz des fois est-ce que du loo xamante ni xale yi la parce que keroog loolu bi nga xamante ni am na génn nañu def li nga xam moom mooy micro trottoir bi am na ci ay parents yu bari yoo xam leen parce que nee na ñun def nañ lu ñu mën def nañ lu ñu mën parce que lépp loo xamante ni warlu na suñu digganteeg ñoom mooy jàngal nañu leen dugal nañ leen école dugal nañ leen arxuraan bu bu bu feet jotee lépp loo xamante ni warlu na suñu digganteeg ñoom ñu ngi koy def mais ñoom ñoo bëgg seen yoon bi nga xamante moom la jël on n'y peut maanaam est-ce que loolu jaadu na ci kilifa. ma ne parents yi li leen war defuñu ko yu zakkihim ko ko setal ba muy xale dootu màgg yuzakkihim alxuraan lay wax nag wa yuallimuhumul kitaaba wal hikmata nañu yar xale yi nañ leen jàngal alquran nañu leen yée dama lay laaj bool bi nga yekk ceeb bi ni bool bi mel rek lay mel bu tilimee day tilim bu setee day set yal ni yuzakkihim raxas leen bool yi bañ set wecc ngeen séendal leen ba ñu ba ñu wow ngeen yekk ci ceeb bi su ngeen paree ngeen teg ci jën yi ku ko gis man koo lekk xale dañ koy defar bu ko gis man koo jëriñoo waaye léegi yónni xale sax doo ko ñemee parce que boo ko yónni est-ce daa wax sa xaalis yooyu yëpp yooyu yëpp da koy xalaat mais li yàlla wax buñ ko defee mais yàlla yàlla yàlla yàlla du juum ñoom ñoo juum mais yàlla du juum yàlla nee na yu zakkiyim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma xale bu ñu yar kii ñeme naa def loolu kii kii ñeme naa def loolu xelam xalaatu ko xelam xalaatu ko parce que fi ko jaarle la xam nga dañ ne la dix-huit ans yara sa doom ba am dix-huit ans wàccoo nga moom Seydina Omar ibn Khattab benn waaye dafa indi doomam bi mu amee six ans ne ko dama ko bëggoon dugal ci daar yi mu ne naa yar six ans mu ne ko six ans la am mu ne ko wees naa yar da yàq xale yi mhm. mu yóbbuwaat ko ba mu amee xale ba mu am fer am deux ans mu indiwaat mu ne kii wees naa yar yóbbul sa doom mhm. mu nga aman ah, de Omar jaaxal na mu amaat doom bis ba delsi mu indi doom yi mu ne ko wees naa yar <laughs> kenn mënu ko yar mu mu yóbbu ko ba mu amee doom rek mu yëndi doom ji mu ne ko wees naa yar mu ne ko ah bis bu eh, six cent bis bu ay eh, bis bu bis delsi yëpp eh, wees a yar mu ne ko wees naa yar ñu naan kii benn góor ne ko dama laaj ko lu tax mu ne ko waaw lu tax ngeen ne mu ne ko doom ba ngay bëgg ndeyam nga koy yar dëgg la ba ngay bëgg ndeyam danga koy tànnal ndey xale dañ koy tànnal ndey mais doo tànn wuyu bu jigéen wuyu bu jigéen loo koy doy tànnal ko ndey ah da koy tànnal ndey mais doo tànn wuyu bu jigéen wala bandi bu jigéen yàllaa ko wax de luy loolu ak tayibaatu li tayibiina wa tayiboona li tayibaati alxabisoona lil xabisaati alxabisaatu lil xabisina noonu rek lay mën a demee yàlla nee na jigéen ji yiw góor gu yiw góor gu yiw jigéen ji yiw góor gu wuyu jigéen ji wuyu waaye tey boo amee xaalis ñu may la jabar mm-hmm. ak famille bi nu mu bokk ak xale bi nu mën a mel ñu may la ko moo amal xaalis rek waaw mais loolu yàlla dafa bëgg ñu may juróom-ñetti at fukki at ak juróom-ñett nga yor ko xale di ko jubbanti di wax di jubbanti di wax di jubbanti di wax ba am fukk ak juróom-ñett yàlla ne la wàccoo nga ak moom na ah ndax li la war ci moom waaye xale boo xam ne jàng école ñibbi si waaye yow benn ñu dàq ko école sax ba boo demee sax daañu dañ leen dàq waaw ñii ñu dàq leen école ñii seen jàng doxul ñii yooyu du wax xa doom dañ koy yar yar dafa métti nee nañ koy yar feeg néewul da nga koo bañ yaroo ko koy yar dëgg feeg bañ da nga yaroo ko feeg néewul da nga maa bañit yaroo ko yar ka dëgg nga yar danaan kii damaa bañ waaye kii damaa contre mhm. fekk bañul la soo demee nag ba yegg fa nga war a yegg da nga naan da sant yàlla. Mhm. nga ni jaar daara yëpp. te daara yi defar leen daara daara yu defar laax na. Mhm. daara defar leen. Ah, kay duñ def loolu de waaw c'est ça le problème. kon mu nekk loo xamante ni fii lañ koy tëjee bu fe. sama naataango mi koy mi koy mbedd mi wala àndandoo mhm. moo nekkool ci moom. yuzakkihim wa yuallimul kit yow da ngaa jàngal yar bàyyi waaye dafa ci moom xikma ma mooy nga def ci xale bi loo xam ne lu mu gisati dootu ko mën a jaaxal. nga yee ko yee ko yee ko ba mu yeewu loolu la looloo des ci yar bi waaw yuzakkihim wa yuallimul kitaab wal xikmata buñ ko defee ci xale bi nga xam ne luñ lu ne danañ la ko wan ne la lii amul njëriñ lii amul njëriñ lii amul njëriñ kii amul gisoo bu njëkk booy ànd xale bu jubadi day naa la moytu ko dëmmal pour bëgg nga ragal ko rek waaw parce que dañuy seet li xale ragal rek ñu wax ko waaw ngay dem kër gu kër goo xam ne dañ leen tooñ eh, yaruñu leen ñoo ne bu fa dem di xaja xaja xaja nga fa di mm-hmm. yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan def su ma rombee sa doom mu saaga man mbéj ko yóbbu sama kër mu yendu fa fanaan fa ma di ko laajte ñu ne ah diw de gis nañ ko mu di ko dóor ba yóbbu këram ñaa ah, kon baax na mu ngoog yar amatul yar amatul yar dafay metti doo sonn ci ki nga yar lu dul ma matt waaye nag bu la xale yóbboo xekk ma duggul xekk ma des na bu xekk ma duggee rek eh, kenn du lay mën a yàq parce que loolu lépp dañ la koy xamal loolu lépp dañ la koy xamal ba nga xam ne yow bu ëllëgee boo gisee ne lii la ma papa doon lii la ma papa doon ah, lii la ma papa doon lii la ma papa doon waaw kay waaye xekk ma duggul mhm. dañoo yar rek <laughs>